ياسين والقرآن الحكيم asalaamaaleykum mbokk yi dama ni kuy wër di nga mës a gis waaye nag ku lamb di nga daj ah mbokk yi jàppale ni nag xibaar bu neex da lay ki ngeen doon wër ak si na kii de ku mës a jàppook moom wala sax nga xam ko rek sa aajo faju na ba faaw dafa yaru si xam-xam bokk nag si njaboot gu mag njabootu diine kuy maamam bu ne Serigne Baaraloo Hakim taalibe Serigne Abdou Hakim Mbacke yan yàlla yokk leeram ba ah mbokk yi nag sa too si sëriñ Abdou Yacine moom sëriñ Mor sa bokk nag si cheikhu sëriñ Touba si ah mbokk yi bi présentation ku ko am xamal nii lépp lu ñuy wër ma nga ca yow waaye nag sëriñ Baaraloo Hakim lii mu yor da koo gëstu xam ko jàng ko donn ko ah xam-xam nag kenn du ko fortaatu lii de mooy dëgg mbokk yi ba tax nag dama ni tey jii bu ngeen amatee jaaxle si lépp lu mën a doon si wàllu àdduna jàppal ni ku ko jàpp ku nekk jàpp nga fu dëgër jaratul dem faneen di jéggaan dama ni bu dee kurus mbiram sëriñ Barlo Hakim day amal ay listixaar waaw waaw mbokk yi bu ngeen bëggee seen i mbir leer mu génne leen loo xamante ni du ma a dañ ñaanam kun la bu dóoree bal ba day tàkk ba faaw kii de mooy sëtu mbër waaw di sëtu kàngam moo taxit mbokk yi feeñ na nag nee nañu sët moo yor nag ndonal maam ba tey mbokk nee naa la day seet seetu joni joni day seet si ndox day seet si lépp lu mu la wax moom day am incha allah si kàttanu yàlla sëriñ Barlo Hakim mbokk yi 78 07 25 76 180 83 03 le numéro de di numéro Maroc di 00 221 617 112 22 bien mon joko ak mom en temps réel 24 heures sur 24 sur WhatsApp ak tamit ci téléphone am ñu fofu accès gu ma sax nak si yilé xar bax yu amal bu ngeen bëggee té Bayra siiw nga don artiste nga don mbër nga don politicien bëgg ubbeeku bo ñëwé mom mo ay ci li nga bëgg jaaro yii mu yor mbokk yi moom la àdduna wërngal këpp di wër sëriñ baaraloo hakim nee naa la moo am nomba boo xamante ni dalay aar sàmm la musal la ci làmmi nag cet ak balaa ubbi la waaye nag yamul foofu de nomba bii ma ni kiraama yi mu àndal kenn du ko lim si rajo kenn du ko wax si réseaux sociaux ñëwal ak si woo ko rek xam ni ah nombre bi mooy waaja waaye nag lépp luy xeetu samp moom bu la bëggee samp ba faaw ca kaw ca kanam ñëpp di lay coow dama nii mbokk gaawal gaaw woote si bi la numéro ko ak Serigne Bara Lo Hakim mi nga xamante ni ndaw la dafa jël lépp jox Serigne Touba boole ko gëstu ak xam-xam bu wër dégg doon na ko nag si ay maamam kii mooy surtout Serigne Abdou Yacine waaye nag di surtout Serigne Mor Absa bu fekkente ni da ngeen yëngu si wàllu commerce bëggu lu ngeen jaay mu jar opérateur économique ngeen doon ay agent immobilier jaay ay kër wala ngeen di jaay ay oto wala ngeen di tukki bëgg ay këyit wala ngeen bëgg ñibbisi ba ngeen nekkee góor am ku ngeen di bëgg yàlla jubalu leen sëy bi gën a dëgër bu dee jigéen nga am faru rab ak mbokk daal lépp lu mu mën a doon ba si fajub cosaan waaw hémorroïde moom lam cay def kem du ko ci def bu feeñ wala bu nëbbu da gindi ba mu set wecci estomac ba si asma ak diabète ak lépp lu mu mën a doon ah mbokk gaaw leen gaaw jël rendez-vous alxames ba samedi noo ngi Touba waaye nag samedi si ngoon ma nga mbuur ba alxames dellu si waat bu ngeen ko bëggee gis yooyee gox dem leen jokkoo ak moom waaye nag beneen semaine ba ma nga Dakar la capitale sénégalaise lii daal jàpp naa ni mooy xéewalu neen gaaw leen gaaw lu assuré bu ngeen ko bëggee mbokk yi woote leen gaaw 78 198 07 25 76 180 83 03 wala 0 0 51 617 72 22 ba tey numéro whatsapp ba Serigne Bara Lo Hakim moo yembali lépp ngir seen aajo faju ba faw